asalaamaaleykum yéen mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam bi nga xamante ni moo ci jiitu nag mooy dañuy sant waa Touba bu baax a baax ndax Touba ku ne xam na ni voté nañu massivement pour le président Macky Sall te loolu mooy li nga xamante ni moom lañ doon sàkku ci dëkk bi di Touba muy loo xamante ni dañu ànd ak suñu leader muy leader bu mat leader leader boo xam ne kenn joxu ko ay moyen mu taxaw ñafe ba am li mu bëgg ci biir Touba Belel doon dëkkam boo xamante ni léppam fii la nekk mu ñëw gañe ko massivement à soixante quinze pour cent kon kon dama bëgg yéen population Touba Belel ngeen xam ne ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm te di leen ñaaxaat di leen dolli di leen xamal ne nun noo ci seen ginnaaw nun ay pionnier lañu yoo xamante ni li ñu war mooy ñu fas yéene topp ci ginnaaw maam sey lépp lu mu ñu defal ko ko ba élection député yii di ñëw ci kanam mu am ci ndam lu rëy loo xamante ni du ko seq ak kenn loolu mooy suñu programme actuellement kon dama leen di ñaan yéen waa tubaab Belel ngeen bàyyi ñu xel bu baax te xam ne nun bu nu fi toogee yéen leen fi toogal bu nu dee daw guddi ak bëccëg yéen a tax ñuy daw kon bàyyi leen ñu xel bàyyi xel jeunesse bi te xam ne yéen tamit yéen jeunesse bi yéen a fi nekk ëllëg comme yéen a fi nekk ëllëg nag danoo bëgg yéen yëpp ngeen wëlbatiku doon benn ànd ak ñun liggéey te xam ni mag dina toog di gis fu sari gone taxaw du gis dara kon loolu maa ngi leen koy yëgal yéen population bi. danga ñuy bégal say taalib lañ waaye ñu Mbàkke Yaaram ñun ñoo la war a bégal ndax boo toog ba sa kaw lool bu rafet bii Macky day am ndam ndax ñaan nga ko te ñun kontaan nañ suñ kontaan Touba tey am na fu mu jóge waaye amul fu mu yem soxna maam say jërëjëf mais que yàlla na fi dund téeméer at ngay dimbale suñu mbokk yow maam say danga ñoo yàgg bëgg ba ñu bëggee du tey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 dugg ci oto yi tànk ak tànk mbagg ak ba indi ko tubaabal jox leen ko ba bëgg dem machine machine bi mu fi indi machine bi mu fi indi teg ngeen seen bët financement yi fi korab fi financement yi ñu ci indi teg ngeen seen bët kon donc ni leen jàppale maam say sant ko gërëm ko di entre di recevoir appel le président de la République maam say mii mu téew ñu ko defal ñu ko kilifa mooy nañu ko sampal nomeel ñu ko mu nekk koo xam ne day man di dem di ñëw di indi di jëriñ waa Belel loolu moom ñu ngi koy lancé autorité yi di ko lancé président nga xam ne moom mooy mooy noonu. asalaamaaleykum yéen waa Touba Belel tey moom sama xol dafa sedd ba mënu maa wax ñu ñëw sant si waa Touba Belel bu baax di leen gërëm kenn ñu ciy jiital suñu Abdou Thioune mii di suñu waajur taxawuñu jàppale ñu ci Touba Belel di sant Moussa Thioune mii di sama càmm ñi bokk liggéey bi te yàq di ko sant baax du gërëm jiituma ba dama fakkastal kon nag maa ngi lay sant baax na gërëm di sant euh, waa Belel gépp di sant euh, Ndiak Sey di sant Ndiaw Dieng Cheikhouna Fall di sant ñëpp su ma limee damay juum mbaadaam gay Seydou Assane su ma limee damay waa Bello gis nga président ay gor a ngi nii ay gor yu la jàpp tey ay gor yu mun taw yu yow du wor waa Bello du ngeen ay warkat du ngeen du ngeen génn ci ci ci ci ci mbaanum tiir génn weex tàll ay gor ngeen ay jullit ngeen financement mos a dugg Bello bu jógee ci état bi leer a ci état bi leer mos a dugg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 doon murid di taalibe Sëñ Tuubaa Aliou Ngouille Ndiaye doon taalibe Sëñ Tuubaa Mame Thierno Dieng doon taalibe Sëñ maa ngi doon taalibe Sëñ Tuubaa kon nag léeg leen Sëñ Tuubaa rek maa wate population watewul Sëñ Tuubaa mi joxe na ma jox na na lu la dénk na di waa Tuubaa la di nga waa Tuubaa beral ma na fi hôpital baa ngi manqué na nit nag bu ma fay waa beral teraanga li man def nañ ko ko ñaax yéen ñu a Belel ñu ngi sant baax la gërëm sëñ Tuubaa nag la suñu taxaw sëñ Tuubaa ko demoon fay la sëñ Tuubaa fay na ma sëkk folu nga dañ ne Bamba fépp Bamba fépp Tuubaa dong du ay taw bi sëñ Tuubaa te yaa ngi nekkal ci réew mi Bamba fépp Bamba fépp président folu nga yàlla na sëñ njiglaay am nañ bi kontaan nañ bu baax jërëjëf